defu ko mais yow réaliser nga ko donc moo tax bu ñu la gërëmee dañuy gërëm aussi xalifa parce que tamit bu ñu tollee fii tey lii ci liggéeyam la parce que ba ñuy départ di démarrer basket bi y avait de moyens mais moom moo ne woon gëm dama gëm basket je un dessus du football je vais vous accompagner aller chercher les meilleurs construisez une équipe pour ville de Dakar mu def ci moyens yi accompagne ñu ba nga ñëwee tamit jël jël jël jël bopp mairie bi li ñu waxoon def nga ko ndax newoon nga fépp lu mu leen doon defal su ma ko yokkul duma ko wàññi mais da nga ko yokk ndax subvention bi ñu doon jox yaa ñu koy jox ba pare jël teraanga ji tegaat ko ci donc au nom de l'ASC ville de Dakar yëpp au nom des agents municipaux ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax ni li ñu defale yegg na suñu xol et yàlla la ngay bàyyil parce que yombul teraanga yombul teraanga da nga koy xam pour def ko Donc euh, au de l'ASC Ville Dakar, on est très très fiers de vous et on vous remercie de façon bu amul ab mhm. donc gërëm la sant la peut-être euh, bàyyi peut-être ñaari représentant équipe yi ñoom it ñu wax parce que je pense que yombul occasion bu mel nii mhm. quand même autorité suprême bu mairie bi ñëw taxaw premier magistrat de la ville donc yoon la ñoom it ñu bàyyi leen ñu exprimer wu mhm. wax la tamit ñoom seen xalaat ak seen seen seen yëg-yëg par rapport ak dimbal bi ngay dimbali euh, ASC ville de Dakar rawatina nag basketball bi donc ki ne moom muy capitaine jigéen ñi moom mooy wax seen tur. li yombul comme ni ko suñu président waxee rek na am jigéen mu nekk suñu ginnaaw ñun jigéen ñi daf ñu gën a dooleel te gis nañ ni su am du tey ndax daan na ñëw final yeeg yëpp te nekk woon madame le maire kon tey su ñëwee dafa war a ñëw sóorul dafa war a ñëw ndax fi këram la ba bus bi mu ñu jox nii lu war la. da suñu sag la sagam la ah. parce que fu ñuy dem gàddu biis dañu naan kat ah suñu madame le maire moo ñu ko jox tax ñu gën a yokk jom gën a góorgóorlu hmm. kon ñu ñoo ngi koy gërëm di ko jaajëfal di ko ñaanal yàlla hmm. fi mu nekk nii yàlla na ko fa yàlla saxal hmm. jox ko lu gën a kawe ay njottam yàlla may ko wéegu yaram yàlla defal ñu ko ñun tamit te équipe tamit ñu am ndam parce que ndamam suñu ndam la mu ñëw rek ñu gagné ay coupe loolu neex na ndax si ndamam la kon boog ñoo ngi koy ñaanal yàlla di wax merci te yaakaar tamit soutien bi gën a continuer parce que soxla nañ ko dañu bëgg dem coupe d'Afrique ak loolu yëpp nga gën ci jàppale comme ni mu si jàppe mm. merci beaucoup. Euh, tout d'abord on remercie euh, tout le monde. am ci équipe bi euh, lii moom dafa rafet doon na loo xamante ni luy dimbali équipe garson la ak fii ba ci petite catégorie bi dañ ciy gis seen bopp ndaxte bis bu mel ni suñ ko madame la maire joxe pour équipe bi motivation la pour ñëpp tamit équipe bi gis nañu jamono yi ñu toll fi ñu nekk nii. ñu ngi góor góorlu bu baax a baax te madame la maire gis nañ ni jig nañu ñëw na fi jigéen ñi am ay coupe ñun góor ñi tamit incha allah dinañ ko waajalal benn bu neexee yàlla. géeyam ak encadrement bi yëpp ñu ngi sant di gërëm ñëpp. jërë ngeen jëf. sama teewaay bi ban fii tey teewaayu conseil municipal ville de Dakar. bus bi nga xam ne tey danaa ñëw jox leen caabi yi conseil municipal moo ko voté pour équipe bi équipe bi nag neex naa dimbale ki neex a dimbale mooy kiy def ay résultat te wax dëgg yàlla ren conseil municipal bi yëpp kontaan nañ ci résultats yi bi nga xam ne basket bi indi na ko di leen félicité ñoom ñëpp di félicité président bi président ñu ngi lay félicité bu baax yow ak sa équipe bi ñu nga àndal sa. sa staff bi nga xam ne yéen a ànd ak équipe yi di leen di conseiller ànd ak seen i entraîneur di leen di entraîner ba résultat yi ngeen am ko tey sama waxu démb nag mooy sama waxu tey ba léegi Khalifa sàll lii fi am yëpp tey moo ko sumboon kon moom itam dañ ko ci remercier man ba ma amee mandat bi nee na je dans la continuité continuité bi moo tax la mu sumboon nee leen bu ma deful lu ko ëpp du ma def lu ko yées donc euh, joxoon na leen subvention car bi moo amoon xalaat bi ba dugaloon ko ci budget bi yàlla dogal li mu dogal jotu ko joxe tey ma koy joxe bon ci turu conseil municipal bi ak ci turu xalifa Sall di leen encouragé bu baax di leen wax ne conseillers yëpp kontaan nañ ci ndam yi ngeen ñu indil yaakaar nañ na ren nag di ngeen ñu ëpp di ngeen ñu indil lu ëpp loolu incha allah kon euh, bu leen euh, am benn euh, xel ñaar su ngeen amee lu ngeen war a laaj da ngeen di laaj lu ville mën rek bu soobee yàlla danañ ko def pour ngeen dem de l'avant montrer le bon exemple montrer que vous êtes des gens déterminés et Euh, qui ont un objectif à atteindre et je suis sûre que l'objectif atteindre. Oh, Ça me va droit au cœur. Vous savez, à chaque fois que je un petit geste, on me remet des Mais <laughs> bon, c'est normal, c'est notre tradition. Nous sommes dans un pays de teranga. Donc teranga, comme on dit, c'est l'effigie de la ville. Je suis contente, je suis très fière. Et voilà, nous sommes là dans le domaine du sport. nous sommes là dans le domaine du sport. Ne parlez pas de politique. Voilà. <laughs>